am xalé lo xamni dañ ko dund li tax ñuy top euh, opposition bi euh ay Barthélémy ay Sonko surtout li ñuy wax opposition radicale il faut nga xamni xalé yi dafa am sen sen sen sen sen xalaat sen xel nu muy fonctionner parce que xalé da fay da fay bëgg cohérence dans la démarche te xam nga bu fekkente ni bi ah dafa dañu dañoo rajee fonctionnaire fonctionnaire boo xamni dañ ko radier pour faute lourde wala faute grave ah ñu dakh ko euh, par la politique mu dellusiwaat mën a nek député du siège de assemblée nationale deuxième institution du pays mu wat muy fonctionnaire bu ñu dakh jité fonction publique locale lolu du cohérence xale xalé ni complot la ndax communication bi gëbloo nañu xalé li waa ji lanceur d'alerte la dañ ko complot alors bi ci tegu euh, Ousmane Sonko jiiñ benn nawleem ne dafa jël 94 milliards ci ay euh, ci ci ci ci euh, ci xaalis Sénégal 94 milliards boo ko dugalee ci abri provisoire yi daanaka li ci des du du bari

Euh, xaalisu pétrole bi ak gaz bi chef de l'État ah, accusation bu toll noonu ànd ko ay reportage amul procès pour leeral amul dara ah opposants yi ñoo wax wax kon nguur gi mi ngi ngi jël ah, affaire Adji Sarr at ñuy xaar procès gis ñu dara xale yi dañoo dañoo complot Ousmane waaw dafa am ñoo xam ni bu dégg bëccëg dañ daan jël xale yi ne nañ saaga Macky Sall nañ xas Macky Sall xale di saaga Macky Sall di xas Macky Sall ñooñu ko doon def.

dañoo voté gouvernance sobre et vertueuse mais tant que xale yi ñu ngi gis ah ñoo xamante ay ay pratiques yoo xam wax ak éthique àndul ak morale àndul ak vertu li liberté wóor mooy continuer di défier sunu sunu comme le président de la république ah retrouver war jeunesse bi grâce dëgg-dëgg ak ay réalisations mais aussi grâce ak euh, Coupe d'Afrique bi yoyu na ci baye xel lolu motax aussi opposition bi du utiliser fa yoyu pour euh, jël xalé yi di len di ci kaw nguur gi